dal di egsi salaamay muna bismillah xam naa duma ci jaaraat dama koy cax ba xam aaway doon nañ la déglu wala déet aleykum salaam wa rahmatulah dégg nga nee na faratay nga ñëw déy ko sëñ bi eh, kii bi walla nga dem déy ko sëñ eh, la li waaw kooku di wax ak soxna jaara déedéet ka ca gannaaw kële waaw ngi nii mi ngi nii waaw boo demee nga bii ko faratay njàpp su dee noonu la nga amub saabu léegi nga gañe saabu fekkee ne eh, daanu nga nag nga xam ne daanu nga rek ndax ma xom ba xam aaway ba xam doon nañ déglu xale bi lim limee faratay njàpp wala déet ndax noonu la wala déet ndeysaan eh, xam naa ne boo tut moom ab topp koy gañe eh, waaye ab aawa du ko gañe moom saabu bi moom njëgu saabu bi moom ab aawa du ko gañe xam naa ne Euh, kon oustaz bu ñëwee rek nga déglu leen macha allah nañ la nekk ba xam awa mën nañ ko wala déet kon euh, ndey ana kumba ndey nogay waaw ndey nogay laa bëgg a Aman yarabbim. Öyle bak. Maşallah. 大家。 borom Tuuba yoonu Sëriñ Bamba ku ci aw doo gërëm te doo ni jaajëf borom Touba. Sëriñ Touba yi kenn ku ko gëmnal mu gëmnal la bëgg a dégg foo la mu daj foo la ko gën sant Sëriñ Touba ku yor bakkan war benn jaajëf borom Touba. Sëriñ Touba yi kenn ku ko gëmnal mu gëmnal la bëgg a dégg foo la mu daj foo la ko gën sant Sëriñ Touba ku yor bakkan war benn jaajëf borom Touba. Sëriñ Touba yi kenn ku ko gëmnal mu gëmnal la bëgg a dégg

dalalee fédération Mame Diarra Ousseynou uh, ci njiital soxna Mame Mariama Dior Dangura incha ci kanam tuuti daañ ci dellu siwaat ndeysaan nga xam ne ñoom ñi nga xame ne ñoom noo doon jàppale Mame Diarra nag ah ba lépp sant lépp addu barkalla macha allah xam naa eh, kanam tuuti buñ leen eh, bañu dal ñuy profité jàllale quelques personnes rek et daañu leen jox microphone ñoom it ñu dal di addu nag macha allah bu ko defee bu ko defee ndeysaan ndongo bi ñu wax muxtaar eh, sugu mën naa daal di ñëw

I Barakallahu مشهورة Para jàkkaarloon moo daal nuy présenté gan ñi nga xame ne teew si nañ ci bis bi jóge ci gox yu fasantikoo sax nga tuddal ñu mbokk yooyu fi teew yaakaar naa ne eh, am na ci biir fédération soxna maam jaaratullaahi eh, nga xamee ne war a eh, si war a si seen mbokk seen wëlëre seen am di jàmm soxna maam jaara ñaang moom itam biir bis bu rëy bi nga xamee ne amal na ko ci bis bi oustaz bismillah tafadal ok jërëjëf oustaz noo ngi jégalu bu baax ci kàddu bii jëm ci yéen di am mbégte bu baax ci bis bi nga xam ni at mu nekk mu ñëw teewe mu santaat yàlla bu baax ci bune ne sunu borom baaxee na fekke daaw fekke ren ci bisu alquran bi nga xamni at mu nek soxna mam jaara ñaan diko taxawal and ko ñu ko andal ñëpp ginnaw bi ñu ko àndee kilifa yi mu ko wara andal waye tam ci ndigal ci ñu ci ñu wara jël ndigal ñëpp Wahid and ànd koog ñi nga xam ne tey ku ñu àndal ku nekk sa mbir jàpp ku taxaw yoon ku nekk sa mbir dox ku nekkoog yoon ku nekk sa mbir gën a mën bu baax ñi nga ko di fédération Daïra Mame Diarra bokki jullit yi boo tàmbalee koy kii fi di Serigne Amit Mbacké ñii ko fekk si tamit bokk ci Bara di Serigne Mbacké Madina moom Serigne Abdou Lahad Bara waaye it mu ànd ak ak di nuyu bu baax di nuyu di siyaare bu baax waa dëkk bi tàmbalee ko ci borom dëkk bi di alxaaji sugu moo koy nuyu bu baax di ko siyaare bu baax a baax moom it tamit alxaaji sugu waaye tamit di nuyu imaam bi di sëriñ Amet Mbakke ak mbooleem waa xaaji yëpp di leen di nuyu bu baax di leen def seen wàccuwaay di siyaare bu baax yi tamit ustaas yi nga xam ne yàlla dogal na seeni tur ak siiwul ci ñun te ñu nekk ci taabal ji booba ba léegi ñoo bi di doxal ni mu di nuyu bu di leen siyaare di siyaare bu baax sëriñ Xaadim Fall mii bàyyi ko Daaru Fall tamit ak di nuyu bu baax suñu bàyyi bàyyi Samba di jàngalekat nekk fa ne ca Kébémer ak di bàyyi mbay mbéng ak mbooleem bokk yi Serigne Moustapha Diaw bokk ci njabootu Serigne Mate Waalo bàyyi ko ngumba moom itamit ñëw na ànd ak ñi war a àndal ñëpp di nuyu ki nga xam ne moo di Serigne Mbaye di borom këru soxna maam Diarra nga xam ne tey mën nañoo wax lépp lu soxna maam Diarra man rek ak ñaana moo ci tàbbi Serigne Mbaye ñu ngi lay nuyu di la siyaare di siyaare mbooleem bi góor jigéen mag ndaw ñi fi dëkk ak ñi fi dëkk waa dëkk bi yëpp ñu ngi leen bu baax di siyaare bu baax ku ci mel ni Baye Ganji Gueye Baye Ousmane Gueye ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen ñoom ci dëkk bi la ñu dëkk. waaye tamit di nuyu bu baax Alhaaji Ndiaye di jàngalekat alxuraan bàyyi ko ci Ceeno Ndiaye euh, bu ñu tuddee fédération daayira Maam Jaara ñoom it danañu war nekk ci biir dikk nañu ànd ak soxna Fatou Mor Ndiaye. ak ak soxna Bintu Ndiaye ak ñun waa Ndar yëpp di nuyu bu baax yi tamit waxoon nañu ko léegi Baye Samb yëpp tudd nañ ko léegi Serigne Baye Ndeye tudd nañ leen léegi. waaye di nuyu bu baax yi tamit fédération daayira Maam Jaara bii tey bis bu ñu ko xel ak xalaat yëpp. dara dem bul demagul taxawal ah. sama goro soxna xadi mbaay déet waaye koy garal leen di garal spécial nga sax jël leen rek soxna xadi leen nuyu bu baax sore sore di nga bis bi ak ñi nga délégation bi ñi nga bi ñu ñëw مولين نيو باخ دي لين زياره نيو باخ اف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيو صراحه لي مولين نيو باخ واي نا ما ديلي سواتي فيدراسيون دايره مار ديار ناخ اب نيو وات نيو لينا كيس نيو صاح واي وات نيو لينا ا مانا وختاني بو باخ ناخ اب نيوم كو غيس ني نيو تاخاوي مبولم فو اب دايره نيك في تندي وي دا جيرالي تيكو مير ñu lootaa bi la ba nga ñëw boo gis ni fédération bi ku gis ñaari xew-xew yi ñu def wala ñett sax laay wax benn bi mooy tànt gi ñu tànt ci kër ni nga xamante ni si ni boot na leen ñu waaye nag kenn du borom kaamilu suba teel bi kenn it du naa leen moom boo taxawal ci digg ni sax dinaa ko wax muy kan soxna Isa Mbeng baat yi ñu yi ñu tiim lépp rek da koo jël jox ko soxna maam jaara ni ko defal lu la neex kon soxna Isa na nga xam ni ñëpp ngi lay nuyu ñëpp ngi lay ñaanal gis nañu liggéey bi gis nañu jëf bi nag fi waxtu bi toll ñoom dafa yeneen i xew ci seen kanam yu ñu war a dem ngir doxi ko moo tax ñu ko rek jukki leen su ko defee kenn ku ci nekk ci ñoom jël kàddu su ko defee nag ñu mën leen a yeewi daal di yeggale di des ci liggéey bi waaye nag balaa boobu soxna Mame Diarra kàddu gi dañ bëggoon a xam ku ñu koy jox xam naa jox suñu bàyyi bàyyi Samba Diop tur yi mu waroon tudd am na ñu des waaye dañuy ñëwaat Serigne Khadim Diagne la ko ku tudd tudd Cheikh baax di la wax ak waa Mbour ñu jël kàddu gi jébbal ko nag Baye Samba moom mu dalal mbooloo nuyu dañ dama ah. wax. waaye nag dara moom dafa dafa ñëw rek dafa dugg yàlla fa ñëw ñu sant yàlla am tey jii ñu sukk ci kanamam di tari ëllëgee fi biir ñu remplacé ko eh, di sant yàlla nag di julli ci yonent di leen indi Sëriñ Saliou Mbacke di indi nuyoo pour soxna Mame Marème yaakaar naa ne ñi nga xam ne tey jii ñoo ngànk fédération euh, Maam Jaara yi ci département bi bu fi soxna Binta Ba teewee soxna Joon Ndangula teew fi soxna Awa Kebe teew fi soxna Ayda Kebe teew fi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fédération départementale bu ñu fi teeree wax dëgg bu ñu waxee rek yóbbaale nañu ñëpp ñoom nag comme ni ko sëñ Samba waxee léegi rek ñun leen sant rek doy na ndax seen taxawaay ci dëkk bi seen taxawaay ci Kébémer am na solo lool ba daanaka ñëpp dañ ko sentir ci seen bopp di leen ëmb itam nuyoo association yi nga xam ne ñooy dimbali daara yi te daanaka tas ci Sénégal te li ci ëpp nekk France te suñu mbay mbenn mii daanaka moo leen teewal bari leen ndimbal yu fi ñëw yu bari ci loxoom lay jaar mi ngi nii moo ko fi indi mooy borom këru soxna ay dëkk bi moom itam bi mu bis bi xam ne dañu fi ñëw wéy na ñu nuyoom ak cantam soxna Diop Dangoro li nga xam ne nag bi tey jii moom la àndal mu magal li nga xam ne tey jii ñoo ànd ñëw fi daf fiy taxawee ñaari taxaw am responsabilité ci association fédération soxna Maam waaye itam daayira fédération section ay bàyyil xadim bu Kébémer bu jigéen ñi moo ko jiite soxna Diop Dangoro magna la waye bu ñu waxe lu jëm ci l'islam surtout yi xamne xam gëm na ci sen tuwaa rek soxna jaar daal na daal ko wërna kon nak moom itam nañ ko ñaanal yalla yàlla gën a wér taxawaayam soxna maam jaara yalla yàlla guddal sa fa li nga xamne tay gi jii moom nga taxawal fi dara dara dara ëpp ko solo ci aduna ndax dañuy wax ni boo sampee say daara rek ngoogoog nga tëj say kaso pépinière bii nga xam ni moom moom nga dajale fii tey ñuy ay xale yu tuuti nga di leen suuxat ci lislaam ñuy màggee yaakaar naa ni kaso dootu am yoon mukk ci ni mel ni yoon ndax éducation bi nga xam ne yaa ngi koy def ci yoon kon nag ñoom itam yàlla yàlla guddal seeni fan te yàlla may na ñu topp ak dégg ba ëllëg gi si lii nga xam ne moom nga taxawee tey ëllëg gi si ñoom tam ñu jël ko. di sant nag soxna Maam Bara wax na ni soxna Maam Jaara moom mënu koo fay dafa jëlee taxawaay bi nga xam ne moom la taxawee ci tarixa bi waaye taxawaay bi nga xam ne moom la taxawee ci lislaam waxtaanam am na yoo xam ne nii duñ ko manqué mukk mukk mukk mukk mukk dañ ko enregistré sax pour bu ñu toogee ba wéet ak seen borom ñu ubbi ko di déglu ndax da leen di jariñ kon soxna maam jaara yal na yàlla guddal sa fan wéral sa cër ah li ma wax ni sax ma def ma bett nag jox ma kàddu gi wax dëgg yàlla moo tax sax muy jéem waaye xaaj yi tey yii samay ndax section ay bàyyil xadim bi nga xamni ne sëñ Moustapha mohammed moko moo man mi maay président section bi ci bo ni soxna jor da ngoy moy président secteur ci jigéen bari ñu bari nañ fi lool ay mbokk taalibe yu fi nek at bu nek bu ñuy màggali ñoy and ñoom itam maa ngi leen di euh di ñaan man sama mbégte di ñaan yalla li nga xamni tay tey taxaw nañ ko fi. yàlla na ko fi yàlla saxal abada am na ñuy fi tudd soxna Xadi Mbaay ñu di ko dàkkantale ci nday soppe Seydina Muhammad woowu pour lay soxna Xadi du ko nekk ku mën a am te nii xam ni noonu la dàkkantale eh, soppe Seydina Muhammad yàlla na nga gudd fan gudd fan gudd fan gudd fan ba màgget ba kumur ba ëllëg gi gis e nañu sa taxawaay mënuma lim ñëpp ndax ñi ñi nga xam ne ñoom la soxna Joor daan war ak soxna Bita Ba àndoon dañoo bari waaye nag kenn ku nekk ne wut ni soxna maam yàlla gis na gis na sa taxawaay te xam na sa yéene kon daal sëñ Samba maa ngi yem fii ndax maa bett lool ba xaw ma sax lu may wax waaye nag ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di sant ñi ñu fekk ñëpp allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslima <laughs> jërëjëf Baye Samba tubarkàlla kàddu yi mat na matale na dañuy wax rek dañuy yëkkati kàddu gi jox la ko nga ubbil mbooloo mi waaye nag dalal ñi nga xam ni ñooy fédération bi xamale leen ak waa dëkk bi xamale ñu leen naam sax waaye nag bu ñu dikkee nii yoon la ñu yëkkati seen kàddu ne leen ñi ngi nii nii la dikkee waaye nag euh, balaa boobu dañuy ñëw nag ci su ko sama waa ji di borom dëkk bi moom li ma la jot liñ na yow waxal sa bopp. baax yéen ñi toog toogaay bu njëkk bii. Euh, ki nga xamne ne bi ngay ñew naro la dox dina ju tang di sama oustaz bi legge sama oustaz ustaas ko ma dawal ko di sa jakartaara legge ma ngi ni nuyu baax di siare mbooleem ñi tok ñëpp bu ma sañoon jaar ci seen tur kenn ku ci nekk soogu kàddu gaa ngi ni du ma la jot lil de te assalamu alaykum mbolo may nuyu ñëpp kenn ko ne si ak santam di jere kilifa di ñi nga xamne ñoo jore te ñoo jite jare baax ci ñoo ci ge tuba li nga xam ne moo waral bis bi Mame Diarra ñu lay sant di la gërëm bu baax si kanam waa dëkk bi ak sa bopp la fekk parce que jàmbaar nga jigéen bu taxawalee lu mel nii si dëkk kon waa dëkk bi yëpp war nañoo ànd ak taxaw jàppale la parce que lii boo ko defee defaloo ko kenn waa dëkk bi ko defal surtout ñun ñi nga xam ne tey ñun ñooy jiite dëkk bi kon nag lii nga def nii am nañ ci cant goo xam ne dana ko seedal bopp yi nga ñoo jóge fi ñoo fekk seen fii ñu lay sant bu baax di la gërëm di sant waa dëkk bu baax ci taxawaay bi ak jàppale bi di ñaan li nga xam ne li nga seen yàlla ko yàlla yeggale ci barke si wàllu Xaadim maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi leen di nuyu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. ne sant yàlla jullit bi sallallahu alayhi wa sallam. sant ñaari waajuram. ne maa ngi leen di nuyu. te di leen siyaare di leen balu ak te di leen baal ne di jiital ci nuyoo bi nag Serigne Khadim Fall mee ne rakam la waaye nag kilifaam la ndax noo bokk bàyyi ne nii li lii baax Serigne Khadim di ko siyaare di ko balu ak te di ko baal ne di nuyu ne Serigne Moutar nag ñoom moom Serigne Abdoulaye Bara ne mi ngi leen bu baax te di leen ñaanal yàlla jàmm di ko sàkku ne ci ne di am kontaan bu baax kooku moom ne da cee taxaw ne ci saahir ak baatin ay ndimbalam ay yitteem ne eh, ba daara jii ngeen gis ñu tabax ko ak yeneen ak yeneen ne yi mu fi def ne defalu ko kenn nag ne fédération bii la ko defal ne mun la sigal mun la sagal ne kon bu ndikkee fii ne dara ko wax ne loolu nooyu nag soxla Mame Maréme Mbacke bu baax ne lii lépp nag mooma ak Serigne Saliou Mbacke ne di nuyu bu baax nag xale yu baax yeeru yi ne Adja Binta mi ak soxna Awa Kébé ne ñun ñi ànd ñëpp ne ñu leen di nuyu ne di la beral nuyu ne ndax bëgg boo gis yéen a koy fay ne soxna Binta ne du ko jur ne dafa bëgg Adja Dior Dangone ba ñëpp xam ne bi mu xëyee. mu dañuy dem mu ko sama oto man aja. Dior mu ko ci sama oto ngay dugg ba soxna Binta ne ba amagul oto ne fu jëm oto Adja Binta ko yóbbu ba léegi itam ne du taal sax oto bi dem ne mi ngi ñaanal Adja Binta jàmm ak mboolem ñi mu àndal ñëpp ne mbooloo mi topp ci moom ne mi ngi di ñaanal seen ànd bii yàlla bu ci bu yoon mais soxna Ayda Kébé mii ne da ko bëggal boppam ne fu mu duggee ci bi rek ne yaayam Ndiol a lay wax ne kon kooku yëg la ne Baye Samba Diop nag danoo bokk daayira ne muy xaritam di goritam di goraam itam ndax doomam a nga jëkkëram nee kon da koy ñaanal yàlla di ko ñaanal soxnaam si nee seen doom jëli sa këram yàlla defal ko fa barke ak bu barkeel yar la fa nekkee teggin kon yaakaar naa ni ñaan gi dana nangu mu ngi gërëm mais fu nekk nag woo nañ fa maam jaara ku ne xëcc na ko waaye amulug rëy amulug diis mais ku ko xëcc wala nga wax ko mais day jël téléphone am ca suuf woo ko mais mu ko moo ne ko diw day dali ma nangam ak nangam mais soo may déggal tey fi nga fii nga nekk sax ci loo bëgg dana la fekk ndax ñi nga andal ay gor lañu ne aja Binta mi ne bu ne kenn tëbalul aja Binta defal fa mu dégg lim lim ko wax ne du ko fofu yam fofu ne ndax seytaane da bari doole ne kon nag soxna maam jaar Adja Joor ne mi ngi lay gërëm ne dana wéyoon ndigal bi day lay wo ci pet def mu wara def ndima man day nangam ak nangam wala din nga ni ma nangam mu ni ko tegal ci suuf defal lii nee mu def loola nee wécc mu ko nag te doo ko ci itam nga àndal ay gor lañu ay jullit lañu koo ci wax rek moo di maam jaara jarano mu fi te nii tey tantaama nga nee ngaañu feema na ña ngi koy rob dani bu demee ca rob ba dani bu demee ca rob ba day tardi lii day tardi lii ndax rob cene ba cene ba lañu ndax ci rob cene ba cene ba lañu xam nga ko ku ne xam naa ne nga am nga ngaan xam nga jaral nga ko lu ne kon nag maam jaara na nga xam ne Adja Binta mii li ko jaral bari na ña nga koy rob ña nga koy rob mu ni bu demee day tardi mu ni bu demee ca rob ba day tardi kon day ñëw fii ba noppi. kon ñoo leen di ñaanal yàlla jàmm. nee fédération bépp. jàmm. ay taalibe Adja Dior daa bëri ngeen. nee mooy seen président. bu màggal jotee. ñooy ànd. nee loolu lu muy laaj. da koy laaj. te kenn leen ci man. lépp lu mu leen sas. Mosiyo boole aw sas. mu ne naa nga may seenu sas. mënoo koy jëkk a joxe. nee koñ ba dikkee fii danaa leen ñaanal jàmm. jërë ngeen jëf. ci kontaan na jërëjëf. jàngoro. maa ngi sant yàlla bu baax a baax di julli Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam di ñaanal samay waajur di leen ñaanal sama yaay di ko def yàlla nekk ci yàlla soo bàyyi yàlla mu defee ay kenn yàlla laaj tàmm yi koo koo koo nga xam ne moom moo ci mu soobee yàlla na ko fee ajana ak daw maa ngi ziare suñu sang yi fi nekk képp ku sant Mbàkke nekk fii maa ngi lay ziare bu baax nga jox sa wàccuwaay di ziare bu baax sama jëwriñ sëriñ Xaadim Fall maa ngi koy seen moom mooy sama jëwriñ ñoo bokk bu soobee kon sëriñ Xaadim maa ngi lay ziare bu baax a baax a baax. man ziare wut sugur xam naa ko bu yàgg a yàgg a yàgg xaw ma fi la dëkk sax waaw dëkk xam ko maam Diarra maa ngi lay ziare bu baax yow borom dëkk bi di ziare ñu àndal sama nijaay Samba Diop ak sëñ Mbaye Mbaye di leen ziare bu baax di ziare yi fi nekk ñëpp di bi di ko commencé ci sëñ Saloum xam ne moo boole. boole ñu ñu nekk fédération daayira Maam Diarra nekk presque quarante et un di liggéey liggéey bu am solo di jàng di jàng ci fédération bi am ci daara xam-xam di ci jàng suñu diine di ci jàng suñuy faratay julli di ci jàng loo xam ne mënuñu ko woon ñu koy jàng ci fédération bi comme fédération bi am na njëriñ di ci dimbaleen te tamit te rek tax xamante ni yokku demante bi yokku lépp yokku te lépp Serigne Saliou moo ñu boole ndax yàgg nañu ci dëkk bi te fédération bi am na ko woon kon Serigne Saliou ñu ngi koy ñaanal bu baax bu di fan ak wóor di ñaanal suñu jëriñ sama maam ku ne xam ne sëñ Bassirou moo si Serigne soxna Marème loolu moo tax ñu ñëw te soxna Marème ku ñu gis rek gis nga soxna Marème bàyyi wu ñu dem fu ñuy dem ñooy ànd ak moom. di ñaanal bu baax suñu yaay Adja Diop Angélil di fan ak wóor di fan ak wóor rek lañ koy ñaanal yàlla bàyyi ko suñu kanam. di ñëw nag ci li nga xam ne moo ñu fi tax a daje muy soxna maam Diarra liggéey bu bi nga xam ni fédération bi la ko Serigne Mbaye ak Mamadou ak soxna ay dëkk yi nga xam ne moo ñu ak ñoom defal. ñu ngi ñaanal Mamadou Kébé ak ñi mu ko àndal ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp yal na leen yàlla may gudd fan ci diine ji nañ ko yàlla ndaw la ñu bokk ci moom moo ko fa yàlla ku ay na jërëjëf Diallo Diakhaté ak yéen ñi nga xam ne yéenay jàppale Mame Diarra ñëpp te nekk ci fédération bi loolu Mame gis na ko te ngeen ñëpp ku ko ci defal képp ku ko ci defal bala moo tëdd dina ma wax ma ko. ku ko ci mayu 1000 francs sax bala moo tëdd dina ma woo ni ma ay ay na ma nangam kon Mame Diarra ngeen koy defal gis na ko yal na leen yàlla fay ñëw. di kontaan bu baax a baax a baax a baax xam ne jamono xat na. lii dafa mënta ñàkk rek ñu teew fii yàlla na ñu dund ba tabax fi yeneen i classe yi classe yi classe xale yi fiy jàng yàlla na yàlla barkeel seen njàng yàlla yàlla may ay élèves yu mokkal yu bare bare bare bare yàlla nañ dund ba fii ñëwaat ci ay émigration yu bari di gërëm bu baax nag sëriñ Mbaye Babacar Diop mu ngi nit bu baax a baax la ku maam jaar am Mbaye Babacar am na la Mbaye Babacar bàyyiwul maam benn yoon heure bu ne moo koy indi di ànd ak moom kii bu amee programme mu ànd ak moom te loolu góor bu baax rek moo koy def kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waa gàddu mbaam yi ñëw nañu waa Thiel yi ñëw nañu ku ne xam ne programme yi moo bari waaye dëkk yëpp naroon na ñëw dëkk yëpp ñoo naroon na ñëw waaye programme yi dafa bari xew-xew yu bari moo tax ñii rek ñoo ñëw Yacine Ndiaye bu jàmm gën ñëw na soxna ay dëkk bi ànd ak daayira Escale waa Thiel ñëw nañu Fane Ndiaye ak wanta mbaam ana yaan day nday kon ñëpp bëggoon a ñëw waaye lii la ko yàlla dogal jërë ngeen jëf maa ngi tuuxal bu baax a di ziar bu baax di ko ñaanal bu baax a baax gudd fan ak wér jërë ngeen jëf

warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Himim tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun silat ayatuhu Qur'anan harabiyyan lihat. يعلمون بشيرا ونذيرا فأهلك أكثرهم فهم لا يسمعون وحالوا قلوبنا في أكنة مما من النساء الرجال نساء نساء ولولا بدون بلا جاب يلا سين دك دك الله ربنا كل نور من رجال دک من النساء سیل xaaral Seex Musaa radiyallaahu anhu jigéen warul jigéen na ay kuróoram walab danam bani jarok ay wena dir ko ho mel na ne gis na hawla ta lepp mo kay gatu mo def ro hara ci gen walul ti julli ban ci muru walut ci feñal karawam nay muru ma wax la yo xamne ci gen lu mu bax ba walul ka fi dina lu fekk ba minna te ko lu mu ban ban yoy wal ko abadan baalu ko may mu xëtt saadi ahmada jigéen du def yoneen du def ak xutbu jigéen du def xaw du samaan du sarbu du dem di wanti gis moo tax du dem gis fi di gis ak du moom jamono def wàlliyu lu maanu maanu bay def nabiyu jigéen du dem xalifa fii di waane lum jàng jàng lum waane waane jigéen du am jëkkër di bokk aw far ñuy jariñante loole xew na jigal jigéen du gaara wuti def bopp neen dalaa musóori muudu mal fa gan neen jigéen su dee sol mal fa baamuy muudu faa mujul wàlli wuy dem ñoora jigéen su dee sol ropp doo di faalu faa mujul kuy man di dem nagaalu waahiru دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته we are going وكلكم كان كون راهن أفسامغا وكلكم أركان كون مسؤول بنام قلاك عن راهية سلام رن سامو ورجلو قرقي راهن أفسامغا في أهله سأينام وهو مام مسؤول بنام قلاك عن راهية سلام رن سامو ومرأته جيجنجي راهية أفسامغا في بيت سوجها سكر برم كرم وهي Mom. mas'ula dun jinan kolal han rahiyati Salam dun samu wa hadimu min Rahim rahin ab samula fi mara sayyidihi sa'alub sangat wa huwa mam mas'ulun jinan kolal han rahiyati salam dun samu wa ibnu damji rahin ab samula fi mara abi sa'alub bayan wa huwa mam mas'ulun jinan kolal han rahiyati salam dun samu أنفسكم فكلكم كسنة وكلكم أكان كسنة مسؤول دين بالقراء من رعيته سرم سمو سر بصير مكم سر توبا هذا له الله مختار له توس أيفا كم كمم دار سرين جوال سرين محمد مصطفى لك أنا سبقكما ولك ممدر حمر فننجي فنجي كمم دار سبدا يا جهل sëriñ bi naka yow laa ko nga daal di delsi mu kon Mbàkke daal di ci dimbale sëriñ bi naka baax na wéy di waxtaan ak moom ca loolee ba mu yàgg mu ko Mouhamed Moustapha ma laajal la sa fu basiiru ne mu ko sa borom nee fa seet siidi ne ko ana ku gën a ci fii nii fi ko sëriñ Habibu ne bi ne ko woon ma ko naa ko muy taral lu ca xayma ne ba ko joxee bataaxal bi ba mu jàng ko du ko yey ba mu mokk ko kenn du Tuuba Xaadim Rasuul wa yaa xaaja bu Seex Bamba jooy naa ko jooy defal waaye ahmadu fardun xadimun sëriñ tuuba si rek turam doy na ak deemu def naa ko saa wattal mu wuuto far bismillah barkeb sëriñ tuuba su may lekk ba may naan sëriñ bamba radio mu wuuto far bismillah barkeb borom tuuba wasalaamu tabarakallah kenn sëriñ tuuba maam jaara ñaan ci la maam jaara ñaan bismillah أبهر الكرام أمهات عزيزة ضيوف يا قوادي سمي بوكو لأنه نقبو يهدي طريقة إلى نيران الجوسر لا تحضر Bueno. quotidien pi no haali ɗum ɗen mange haala ohna raddulum jenno wawi ya rasulullahi yawqi allah yonni awhini ɗenɗuma haala wahna la tahda gulmer la tahda gulmer wala kañenna aljanatu aljana haala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yonent yàlla bu tedd bi neen isaa xadiba dem ahadukum kenn si yéen fa yuskun noonu wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf waay ñu jàll jërëjëf Mokhtar Niang ñu jëm ci Mokhtar Niang xale bi ne dafa am lu wax yéen am ku ñëw jot sallallahu alayhi wasallam ne ko ko mu ne ko laa tax dagul bi mer baaxut gisoni buy wajah xex ya, wala muy xulo mu ta wax bismillahir rahim bismillahir rahmanir rahim damay xulo wala bismillahir rahmanir rahim damay xex man musuma ko deg motax kon lu nit mu ta wax rahim lolou baxo kon nañ moytu lolou kon ñu jall bismillah assalamu aleykum ya seydina maxtaar Sow sëriñ maxtaar ana ban ñaan ngay ñaan booy génn sa kër su may génn dama kan damay wax bismillah tawakaltu wa alallahi wala hawla wala quwwata illa billahi booy dugg sa kër lan ngay wax may dugg sama kër damay wax bismillahi walajna wa bismillahi xarajna wa alallahi rabbina tawakaltu waaye ban ñaan ngay ñaan booy dugg ci wanu may dugg ci wanu damay jiital sama tànk càmmoñ wax allahumma inni a'uuzu minal xubusi wal xabaa'isa su may génn jiital sama ndeyjoor wax xufraanika waaw malaja ana ban waxaayu suduy ana bari tey bu Baraidu wudum barata ijaku tak unjuran nyarna ani yadum moyen hatu wati rahasa hatu hatu yadaini rahasa nyari loho ila mir fahaini basa nyari chonte masurasi masasa boku masuri jilani rahasa nyari kanku wasunna noho usulunu usulami ya. haslu hasli yadaini rafasani ari loho ila kohaini masati kijare al madhadu galahandiku al istinsahu sarahandiku al istinsahu firu Radu masu rasi, jelo sing masa woku masu usnaini, rakasa nyari loku, tapi bu banyak karai, tak ada banyak Ya, ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, boy lek na nga wax bismillah rahman rahim boy nan na nga wax Bismillah rahman rahim boy Yen eh, sa lek na nga wax bismillah rahman rahim ngeen jël bi tamit. dégg nga tuuti. booy booy tëdd boo tëddee sa laal ngay waji nelaw na nga wax bismillah rahman rahim ñaar fukki yoon ak ben bu ko defé seytaane sore day kon Bismillah. sëñ Muxtaar ñeeg bisimilah. waxal ci kaw. تبت يدا أبي تبت وهنا وهما وما كسب سيصلى نارا ذات الله فأملاك في دين الله

Love Khadim Diop bismillah Ooh. يوم يوم يربين أيام مقادة وقال أقوام لكن يدفع روى عنا أدوكم وعنا سنقبل ينبغي جلس الإنسافة تجي رمانتها وين وقنا وينهم jërëjëf sëriñ Xaadim wax nga fi xadis bu am solo nee na yeneen bi nee ci ab jullit ak mbokkum jullitam ñu tongoo maanaam gàddaayante mooy kon ñu tongoo maanaam ñu meroo li xale yi gën a xam lu ëpp ñetti fan. Euh, bu ko defee ndax nee ku ci jëkk a wàcc euh, ko defee kon mbokk yi képp koo xamee ne jóge sa moroom bala ko àq euh, te képp koo meraloo it nga fexe ba ngeen déggoowaat ndax lépp pexe seytaane la yal na yàlla musal ci pexe seytaane bu fekkee ne beneen élève Cheikh Bara

فاجتمعوا نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أبدا وإنه كما جد ربنا ميتا سائقة waaxaat yi yëpp rawatina xale yi nga xam ne ñoo jàng ci daara ji xale yëpp ñëw tari ci benn euh, loolu yi tamit euh, waa dëkk bi yëpp jàppale ko ci rawatina it fédération daayira Maam daara ji ngeen di gis euh, ñoo taxawal fii ci seen dimbal jàppale Maam Jaara ci alxuraan waaye jàppale ko mu mën a jàngale bu baax a baax ci noonu it kilifa yu takku teewal fii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 képp koo xam ne yëkkati loolu nga sa tànk ñëw ci dëkk bi ñaan di yàlla tànki ñëw yi ak dellu yi yëpp yàlla ko suñu borom ful te def ko aw yiw te sotti ko suñu kaw di nuyu kilifa yëpp rek di leen sant di leen gërëm di nuyu sama borom ko di ko sant di ko gërëm di nuyu sama oustaz Ibrahima Sow di bàyyi ko Touba sama waajur jigéen soxna Bokka Ñang ak sama mag Serigne Cheikh waaye di nuyu sëñ Mbacke Madina di doomu sëñ Abdoulaye Bara nga xam ne si ba tey mi ngi teew ak si amoon du demee Bara moom tamit ànd na koog ñun moom tamit ànd na koog ñun ànd bu rafet ak Oustaz Ibrahima Sow di sama sëriñ moom tamit ànd na koog ñun ànd bu rafet euh, Oustaz Alioune Diop bàyyi ko Touba moom tamit ànd na toog yooyu yi nga xam ne ñoom ñooy daayira Kanzul Muhtadin bi nga xam ne ñoo yore liggéey bi suba ba tey jàng na ci alxuraanu karim ñaanal fi woy daw lii ñaanal leen suñu borom yërëm leen tàbbal leen ci àjjana gën nga xam ne moo taxoon moo tax ñu di nuyu waa jàppale daara yi sëñ Mamadou Fall Kébé ak euh, mboolem ñu ngi seqal ak ñu jàppale daara yi ñëpp rek waa ISRA Kébé maire waa fédération daara Mame Diarra mbooloo ñu fi teew ñëpp sëñ Mamadou maa ngi lay sant di la gërëm ci caméra bi nga tënk suuf ba tey yaa ngi ci jàpp parce que mbokk mu baax mi yi nga xam ne mooy rajo yi. ak mboolem ñu fi teew ñëpp daal maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne sama xol bu seet na bu baax ci ministre bi nga xam ne woo naa leen ko alxuraan ngeen ministre bi. daara ji nag yàlla dimbali nañu ba yéene ji ci soxna Samb liggéey bi mat na dëgg yàlla gis ngeen salle de classe bi ñu yaatoo lu ko war a am lépp am na ko am dara loo xam ne manqué na am na tamit maar moo xam ne sémb nañ ko fi moom nag sémb buñ ko waaye jëmmi daara ji moom suñu borom def na ne mat na defañ ko dal am lépp kon ñun ñooy ñu jàng rek ci noonu la ñu doxee ñun lépp dañ koy def yàlla sax seen tuuti fay kenn ku ñu fay suñu borom. lépp luy indi kër bi nga xam ne si loolu moo ñëw di kenn du ko lebal moom moom ku ñeme la moom subhanahu wa taala kon nag ci loolu rek la ñuy wéyee même nawet bi tamit lépp xale boo xam ne mën naa ñu jàng si ci boppam foofu la ñuy jël la dina jàngal si boppam si incha allahu taala. man daal tànn tànn cant yàlla noonu xam naa ne bëggoon naa mu gën a mat nii waaye comme waxtu yi xaw naa guddi rek dañ koy tënk noonu rek. comme sama mbokk yi bàyyi ko Touba Ndiour ba ba ba Ndar ba Ndar nit ñi bàyyi ko nañ fi loolu. les départements yi Kébémer rek ñu doon koo jëlee loolu amul kenn koo xam ne des na Pape Mbaye Mbengue ay dëkk bi waa Escale ni waa Mbabo waa Mbasine waa Diamaguène Kébémer nit des na. Géewul dëkk yu ñu wër kenn des na. day doon suñu xol seet bu baax kon jëmm ji nga xam ne moom moo jëmmaloon barab bu na waaye moom wàcce na waaye ko yàlla fayal te dolli ay xéwalam te gën koo may fan wu gudd ànd ak wér. maa ngi sant ñi ak tout tànk yi nga xam ne laa doon jàngal ñoom lay jàngal ma ñaan ba liñ ci bëgg lépp yi cant yi ak ngërëm yi

jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.